إن تخلفت أسبل بأمطار الشوق كالعقيق تسيل أنوح كما ناحت حمامة أيكة أي يهيجها نحو البكاء هديل ودني يعقوب على فقد يوسف وترحمني وقت النواحي تقول فواك بدا فواك بدا فواك بدا فوا فواك بدا من حب من لم ألاقيه فواك بدا أي فواك بدا من حب من لم ألاقيه وبحر اشتياقي للهيام يهون سمام سيد حاج مالنا لقد هاجل لما قلبي سما بمن سيد الحاج مالك للحنين غير تفعل بما أم تيون تيالا محمد وراكبون أقواري أك أفيو يوم سندوي دبار إلى وادي الحقيقي جم تيون انتبي مام سيد حاج مالنا لتخ ماي جوي موي أفيو يوم يجس نوي دكولي دم تيون انتبي تدمو بما مام سيد حاج مالنا ما نسمى نياري بدي فقلت لعيني ما وقت سمى نياري بدي نلن in taxallaftu su ngeen dof dof loo ba tiimu raw du yonent bi asbuli na ngeen sotti bi am toori shawq ci rongoñu cofeel tasiilu yoo xam ne day yol kala aqiiqi mooy su rongoñ yi jeexee sotti leen deret ji ci bët bu dee mënumaa tiim raw du yonent bi mu ne an waxu maa kama naaxat comme ni mu doon jooyee xamaamatu ay katin pitaxu gott ba imam jiite soo nekkee ci àll bi boo jógee fajar 4 heures matin boo dégloo ci sorooru jàkka yi am na pitax yooyu dégg ñuy sab pitax yooyu di sab moom nga dégg sama Mahadi wax ca wala fal ba déglu naa biig ci njël ay pitax ci garab ñuy tawat naan hadiil ab licin moo ko këf ñii naan ko ndax mar wu tar waa ko rey ñii naan ko man xaajuma wóolu ma mii di way mii di jooy nanga naan kurkutuk kurkutuk boo amul fatxu nag doo xam ca la ñuy wax xaraf sa maam Seydi Hadj Mal ne an waxumaa nga yëkkat kamaa naaxat comme ni mu doon yëkkatee xamaamatu ay katin bi taxu njël yooyu xam nga lu leen yëngal yu hayyijuha mu ngi leen di yëngal naxwal bukaa yi jëme leen ca jooy ya hadilu seen cuuj ba ndax bi yàlla dee alak nit yont yàlla noox ya bi yont yàlla noox daajee gaal bi yëpp ci li gën li gëm yëpp bi ndox mi déparé daa fekk benn picc bu tàggoon ca kaw nen fa ba tottal nen ya bi ndox mi ñëwee yóbbaale tuuje ba tay mom la pitax di wër motax bu fajaré nga dégg ko muy joy mam Sidi Hadj Malick ne pitax yoyu dom jañu ñak ci yent yàlla noox ba légui ñu diko joy ma maa leen dàqa joy ndax ciofel gi ma am ci yonent bi mu ne watar amu ni dana ma yeureum waxtan na waaxi jamono yamay joy sakulun moy jigen jigéen ju sëy dem ba am 45 ans médecin yi ne ko danga nga mën a pause mënatoo am doom mu dem ba song 50 ans yàlla may ko mu am doom doom ji dem ba dëgër am 6 ans jàpp 7 ans yàlla xëy rey doom ji maam Seydi Hadj man ni jigéen jooja na muy amee lu ko metti ci xolam maa ko raw ndax bëgg Seydina Muhammad mu ne fa waa Kabida maa ngi jooy ba sama res yi di dagg fa waa Kabida maa ngi jooy ba sama buum xol yi di dagg Maodo looy jooy mu ne min xubbi man lam ulaaqi dama bëgg ku ma bokkul lal jamono yonent bi ñëw na bu yàgg ma doog a ñëw looloo tax ma di ko jooy maa ngi départ dem ca mimi yoba samaam Seydil Hadji Malick nee na baal ma maxtaar ma ñëw départ naag yéen imam nee naa la samaam Seydil Hadji Malick dana cëpp ci terrain bi fekk nuy football moy dañuy waxtane yont yàlla muhammad ñu laaj borom téré siire yi kenn ku ne wax ñu ban rôle ngay jouer ci terrain bi ñi ne man excentré gauche la ñi ne non man excentré droite la ñi ne non man axe central lay def ñi ne man milieu défensif la ñi ne man attaquant de pointe la ñi ne man gardien la sama am sir Hadji ne cëpp ci terrain bi ñu ne ko Maodo yow loy def mu ne man polyvalent la lu ngeen soxla laaj leen gaañi na Maodo yow la ñuy déglu mu ne laaj leen lu ngeen bëgg a xam ci yonent bi ma wax ñu ne ko dañu bëgg a xam laata yàlla di bind asamaan laata muy bind suuf laata muy bind nit laata muy bind jinne laata muy bind àjjana laata muy bind safara laata muy bind malaaka lan la njëkk a bind Maodo bàyyi Serigne Babacar ne maa ne woon yaa gaa isal bahri de yàlla leeram la cof bind ci leeru Seydina Muhammad ñu ne Malick Fawad bi comme asamaan amul suuf amul ajjana amul safara amul fan la leeru yonent bi nekkoon ca jamono booba bàyyi sëriñ Babacar ne maa ne woon yaa gaisal bahri yàlla daa bind fukki kiiraayu leer ak ñaar dugal ci leeru yonent bi ñu ne Malick Fawad mbaa xam nga kiiraay gu ne ñaata at la fa yonent bi def bàyyi sëriñ Babacar ne maa ne woon yaa gaisal bahri xam naa ko fukki fukki kiiraay ak ñaar laa wax kiiraay gu njëkk ga fukki junni at ak benn la fa def kiiraay ga ca topp mu def fa fukki junni at kiiraay ga ca topp mu def fa juróom-ñeenti junni at kiiraay ga ca topp mu def fa juróom-ñetti junni at ba ca topp mu def fa juróom-ñaari junni at ba ca topp mu def fa juróom-benn junni at ba ca topp mu def fa juróomi at juróomi junni at ba ca topp mu def fa ñeenti junni at ba ca topp ñett ñaar benn kiiraay ya jeex ñu ne bàyyi Serigne Babacar ana leer ga mu ne xam naa fu ko yàlla denc ñu ne ko fu ko yàlla denc mu ne daa bind fukki géej ji leer dugal ko ci wa qatiun abxuran ya an biha sabaqa aljamia min nadratin walxubbi walruxami ñune ne Alaaji Malick mbaa géej gu ne xam nga ñaata at la fa yonent bi def ci leram mu ne xam naa ko géej gu ndek ga fukki juniat la ba ca top juroom ñent juniat ba ca top juróom-ñetti juniat ba ca top juróom-ñaari juniat ba ca top juroom ben juniat ba ca top juroom ñent ñett ñaar ben géej ya jeex ñune ne bàyyi Serigne Babacar si mu ne maa nga top leru sayyiduna Muhammad gi avant Makka di am avant yonent bi di ñëw amna ku géré won Kaaba ga amna ku géré won tenu Zamzam Alaaji malik ne ma xam ka yoron Kaaba ga bala rasulillah di ñëw ñune ne Alaaji Malick kan la mu ne waxaaza jurhumu bayta llaahi raziqina min baadi nabitin asfa min arruhumi alaji malik moom rek a ko yoroon mu ne déedéet waxul xusaatun basu makkatan xalaban min baadi tasliti naxfin fi unufihimi ñu ne alaji malik mu ne teenu zamzam am na ku ko fattoon balaa rasulillahi di ñëw alaji malik ne maa xam ka ko fat maa xam lam ko fattee ñu ne alaji malik bindal mu ne wa biiru zamzama amrun tammaha hasadan is axrajuhu li jawrin kaana fi lxarami alaji malik ne balaa rasulillahi di ñëw am na ku ne woon day toji kaaba ga xam naa kan la xam naa nu mu mu mujje ñu ne bàyyi Serigne Babacar bindal mu ne yaa way la abrahatin dallat makidatuhu isma yasuqu fuyulan qasid alharami wa fi alam tara ma yashfi sudura liman ara lahu damaun fi ilmi xaalihimi alaaji Malik ne jox ma nopp ma wax la néegu ndeyam wax la néegu baayam ndax ku jóge ci ay leer war ñëw ci kaw suuf di nga am néegu ndey am néegu baay ñu ne alaaji Malik néegu baay ba ñan la mu ne Mouhamad Abdallah ko jur Abdallah Cheybata ko jur Cheybata Hachima ko jur Hachima Abdi Manaf ko jur Abdi Manaf Qusay ko jur Qusay Kilaaba ko jur Kilaab murata ko jur murata kaaba ko jur kaaba luwaya ko jur luway xaaliba ko jur xaalib fiira ko jur fiir maliga ko jur malik nadira ko jur nadir kinana ko jur kinana xusayma ko jur xusayma mudrika ko jur mudrika ilyas ko jur ilyas mudara ko jur mudar nizara ko jur nizar maada ko jur maad adnana ko jur mawdo ne tek ñu ne bàyyi Serigne Babacar Sy da ngaa gag mu ne déedéet yonent bi moo ne ku lim samay maam boo yegsee ci àdduna noppil alaj maa li ne kon jox ma nopp ma wax la maam yu jigéen ya ñu ne ko maam yu jigéen ya ñan la mu ne fa hunna fatimatu salma atikatun hube fatima hind waxshiyatun bintu shaybanin wa mawiyatun bilwaawi salma wa layla uddalam talami min hunna jandalatu la tansa atikatun وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلها رباب وسودة ومعانة دال دي اند فعل امر غو خامني بن حرف لا نيكي والا يلي لي نيكي وافا يفي في نيكي وعا يعي عيل ابيات تختنمي على جمال ما جوخ ما نوب ماغا توب با تاي رسول الله بلا مو نيو سي كاو سوف xamna bajjan ya بوكون ak baayam ndey ak baay bàjjan ya bokkoon ak baayam baay rek alaaji Maalik ne xam naa bàjjan ya ñu ne ko yan bàjjan la amoon yu bokk ak baayam ndey ak mu ne juróomi bàjjan la rasulillahi amoon yu bokk ak baayam ndey ak ñu ne ko ñan la mu ne umaymatu la barratu bayda aatika arwa ñii ñoo bokk ak baay abdallah ndey ak baay alaaji Maalik juróom benneelu bàjjan ba mu ne baay rek la bokk ak ñoom kan la mu ne bàjjan safiyatu alaaji Maalik ne ma topp rasulillahi xam ñu bokkal ndey ak baay ci ay góor ñu ne ko bindal mu ne wa abdu kaabata jaat minhu abdu manafin ma zubayrin wa abdillahi xayrihimi ñu ne alaaji malik mu ne maa nga topp rasulillahi bi ñu waree jël baay abdallah may ko yaay amina alaaji malik ne maa yëg fañ leen mayee lune de miel ba fañ ko defee alaaji malik ne yëg naa ko ñu ne bàyyi sëriñ babacar mu ne bi ñuy ëmb sayduna muhammad maa ngi koy yëg ñu ne alaaji malik bindal mu ne fi shaabi yow ma sina almuxtaaru qad xamala wa qala sahlu bnu abdallahi zul wazami alaaji malik ne comme damaa jàng siira jàng siira jàng médecine damay bàyyi xel science bàyyi xel médecine ndax ajjuma la sahlu bnu abdallah ne ci la ñu ëmb yonent bi alaaji malik ne altine ñu ne Maodo bu ñu jaaxal lu tax nga wax altine sëhlu wax ajjuma mu ne sëhlu siira lay bind bàyyiwul xel science bàyyiwul xel médecine ñu ne maam Maodo mu ne altine la ñu ëmb yonent bi li tax sëhlu wax ajjuma mooy ëmb ga daa am dafa def dañoo ànd rek leer ga taxoo ci ginnaawu Amina dem dem ci ginnaawu Abdallah dem ci ruxumu Amina sëhlu mu ne Abdallah bind ne ëmb am na te jigéen su ànd ak borom këram lii tax doom sosu bu jógee ci ginnaawu ku góor faaw mu def décalage 72 heures ëmb doog a am alaaj Malik ne loolu laa xam moo tax defuma déclaration ajjuma dama bàyyi ajjuma jàll samedi jàll dimanche jàll ma def altine déclaration ba ne fi shaabi yowma al mukhtar qad hamalat wa qala sawlu bnu abdallahi dhul wazmi layla hal al durru fi thumma al almunadi yunadi musmi fahim ala malik ne bi nu ëmbee yonent bi 2 mois amna lu xew ñu ne ko lu xew mu ne bay ba fatu ñu ne ko bindal mu ne qada bi abwaa abdullahi hina mada shahrayn lil haml hada al kalam ala malik ne bi bàyyi abdallah fatu malaka ya wax nañoog yàlla la malaka ya wax yàlla bay serigne babakar ne ne maa nga Tiwaawoon waaye dégg naa ko bi yàlla di tontu malaaka ya lam leen tontu bàyyi Sëriñ Babacar ne maa nga Tiwaawoon waaye dégg naa ko lu malaaka ya wax mu ne wa qaala lamlaaku rabbal xalqi sayyiduna ayabqa nabiyuka maadudan min al yutumi alaaj Malik lu yàlla tontu mu ne wa qaala laa inna nii laa shakka xaafiduhu wa rabbuhu awnuhu kaafihi fil imami alaaji malik ne liir bu ne da ngay juddu ba ñu ngénte la ba mu def deux jours mbaa trois jours ñu déclaré la nga am extrait de naissance waaye yonent bi six mois la ko ëmb yàlla mooy officier d'état civil bi moo defar extrait de naissance bi jox yaay amina ñu ne ko bindal mu ne min baadi ma xartala waawun yuqaalu laha ha anti humilti badran sayid al umami isa wadaatihi sammihi muhammadan amraktumi ay yakitmaanin allah alaaji malik ne ñu ëmb ko neuf mois rasulillahi gane adduna ñu ne alaaji malik ban heure la mu ne ñii dañ ne guddi la ñii ne bëccëg la maam seydil haaji malik ne boo bëggee wax lu wér neel mat ga ca guddi la tàmbali bi fajar gi xar rasulillahi gi gane adduna alaaji malik nu mu ganee adduna mu ne tànku ndeyjoor bi la jiital teg ci suuf teg ci tànku càmmoñ bi toog mel ni ku julli ba am ñaari rakka di sabbal boromam alaaji malik nu mu defoon mu ne daa bank ñeenti baaraam yi tallal baaraamu sànnekaay ba ñu ne alaaji malik bindal mu ne yuumi sababata مقبضا اصابعه مثل المسبح يرن العلو داهما من على جمالك ني بيمو جوخو ني بارام بكاو اسمان لام دون واخ باي سيرن بابا كان ماغا تيوون واي ديغ ناكو ني على جمالك لوم دون واخ مون جلال رب رفيع جلال رب رفيع جلال رب رفيع لا واخ ني على جمالك مون رسول الله 2 mois لا ام تامبالي رام 3 mois موغي جابندو تي مير 4 mois موغي جيما دوخ ني نكو بيندل مون حباب شهرين بالجيم القيام له وفي دال غدا ممسك الجدران زاهما من الله جمالنا ويتان لا ام مام جا فاتو ñu ne ko bindal mu ne ama sita ama samani wafatul jaddi dahana min wa xaatimin wa anu charwana dil karami ñu ne alaaji malik li nu bëggoon a xam mooy rasulillahi bi muy takk soxna ñaata at la am mu ne xam naa ko vingt cinq ans soxna sa nu mu tudd mu ne xadijatu ñaata doom la ñu am mu ne juróom benn doom ñu ne ko rasulillahi juróom-ñaar la amoon kon juróom-ñaareel ba ku ko jur mu ne xam naa ka jur juróom-ñaareel ba ñu ne ko juróom-ñaareel ba ku ko jur mu ne wal ummu mariyatun law aasha faada bihi alqibtu fawzan aziman gayra munsaramin alaaji malik ku magoon ci doomu rasulillahi mune ne Zeynabu la ñëpp d'accord mune dedet siratu ibn Hisham dafne Ruqayyatu mo ca mak ñune ko bindal mune ne Kubra la ibn hisham min banati rasulina Ruqayyatu faftaqabaha taqumi ñu ne Alaaji Malik kan rasulillahi gënon a bëgg ci doomi mune mako xam Fatimatu bint rasul la ci gënon a bëgg ñu ko lutax mune ndax moy ciat la ala jimali ne ma top yonent bi muy génn Makka jëm medina ma xam kañ la départ xam ku mu andalon xam ñaata fan la def ci yoon wi ñu ne Alaaji برسول الله دم كم عندلون من أبا بكر صديق عامر ابن فهيرة عبد الله ابن أريقة على جمالك نه أجمع لجين كرم دب غارو حرا نتفن ألتين لجين غارو حرا جم مدينة على جمالك بن أرل دب مدينة من ألتين 13:30 alaaj malik ne bi ni réceptionné rasulillah madinatul munawwar lañ ko don téro mang koy dégg ñu ne ko luñ ko don téro mu ne allahu akbar jaa muhammad allahu akbar jaa muhammad lañ don wax ñi nan tala badru alayna min saniyatil lwadaai wajaba shukru alayna ma daa lillahi daai alaaj malik ne bi yonent bi du dugg madina xamna soxna si yoron tabala di tëgg tabala ga ñu ne alaaj malik kan la mu ne lillahi jariyatun qalat mughanniyatun fa hal alayya idha alhu min aljurumi alaaj malik ne bi rasulillahi duggee madina kër gi mu njëkk dal mel xam naa kër ga nu mel ñu ne alaaji malik nu kër ga mel mu ne R plus 1 la ñu ne alaaji malik fan la yonent bi dal ci kaw wala ci suuf mu ne ci suuf la dal lu tax dalul ca kaw mu ne sàkku nañ ko ci moom ba tàyyi moo lànk dal ci suuf ñu ne alaaji malik mu ne maa topp yonent bi muy xare ma xam ñaata xare la xare xam yi mu gañe xam yi mu perte xam yi mu yónnee xam yi mu bocci jaasi ak yi mu bocciwul jaasi ñu ne ko bindal mu ne wii ka magasihi yahdi mubridan kabidan ala xilafin atana min zawil qudumi ñu ne alaaji malik mu ne maa topp yonente bi feebar bi ko yóbbu alaxira bi mu koy song bàyyi Serigne Babacar ne maa ko xam ñu ne ko kañ la ko song bu ne talaata alaaji malik ne bi rasulillahi feebar bi di ko song am na jaaro bu mu daan takk ñu ne bàyyi Serigne Babacar fu mu daan takk jaaro bi mu ne xam naa ci ban loxo la ko daan takk taaratan bi yaminin fa taaratan jaa daa'ilan fissahu baax na daa'ilan fassahu baax na daa'ilan fassahu fii kaffihil karami alaaji Malick ne maa topp yonent bi feebar bi tëral ko fukki fan ak ñaar alaaji Malick ne bis bi yonent bi di génn adduna xam naa ko ñu ne ko kañ la mu ne altine ban heure mu ne treize heures et demi fan mu ne ci néegu Aïcha ban bis la mu ne bisu gàmmu la bisu fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu altine la tombel alaaji Malick ne rasulillahi bi ruugi dogee ci laa ñaan waññi bejaaw yi ci bopp bi waññi bejjaaw yi ci sikim bi xam ñaata bejjaaw la rasulillah am ci bop ba ñaata bejjaaw la am ci sikim ba alaaji malik ne bi rasulillah faatoo xamna naa bejjaaw ya ñu ne ko bejjaaw ya ñaata la mu ne 15 ci bop bi 5 ci sikim ba muy 20 ñu ne ko bindal mu ne walay safira fi hadina wa lihyatihi 20 baydaa izma ji abishabami shabami malik ne bi ruugi doge ñu war ko sang ndox mañ ko sangé fu nu ko jële xamna ko ñaata njaq la ñu defar alaj maa ne ko ñu ne ko ndox mañ ko sangé fu nu ko jële mu ne xaraxuni sidru kafurun biha ghasalu wal ma'u min biiri atyab as sanami alaaji maalik ne bi ni sang yonent bi ñu doon bomb xamna leen ñu doon wëlbati xamna leen ñi doon sotti ndox xam naa alaj malik ku doon sang mu ne wa xaydarun gasluhu walin yuqallibuhu alabbaasu wa bnaahu fadlun sanni bil qusami alaj malik ne bi ñu sangee yonent bi war koo sang perkal ba nu ko sangee téere siira yëpp wax nañ dëkk bañ ko defaree waaye quartier ba la kenn waxul alaj malik dëkk ba nu mu tudd mu la tudd waaye quartier ba yamaani la tudd ñu ne alaj malik bindal mu ne wa kafanuuhu bi bii din qul yamaaniyatun wan fi lamamata wa taqmis fi lxumami alaj malik ne bi nu waree yoor ci bàmmeel bi xam ñu ko gatandu xamna naa ñu ko wacce bi nu ko terele ñaata wo gisuf lan ko njeganaayal pour néew bi baña wulbeut wëlbati alaj maalik ne xamna ko dina ne alaj maalik bindal mu ne wa anzalahu fi lxabri alxussaalu wa atbaqu la binnaati tisaay bir rajami ñu ne alaj malik mu ne ka tok ca bàmmel ba di joy ba jóg fàtte fa dalu ca moñam xamna ko ñu ne bàyyi sëriñ babacar kan mu ne bilal ibn rabah la waye comme sénégal ñëpp xam nañ ne bilal bayam rabah la tuddu te xamu ndeyam nu mu tudd moo tax duma tuddu baye bi damay tuddu ndey ja ne wabnul hamamata rashal qabra yabdau min wijahati ar ras sumal qalbi du darami Malick Fawad wele na gees Mame Hadi Touré na gees Serigne Alim Gueye na gees Serigne Alim Diop Maymouna ne leen ku wax lu toll nii ci rasulillahi su la neexee doo ñaan ñu ne ko waxe kay Malick Fawad ñaanal mu ne kon atmim lana nuurana waxfir jaraimana